lu jëm ci xëyu ndaw yi looloo waral CNTS ak direction de l'emploi des jeunes ñu daldi amal bile partenariat ngir bañ ndaw yi di jël gaal yi. tey ji nag ñu am mbégte dajeek waa direction de l'emploi du ministère de la formation professionnelle et de l'insertion direction boobu nag xam ngeen moo yor ñuy wax liggéey ci Sénégal. ñu toog ñu daje nag ak suñu xale yi les jeunes de la CNTS pour waxtaan signe benn convention convention boobu nag war ñu war a jàppale xale yi ñu am liggéey mais liggéey nag dafa am aspect bu ci am solo mooy li ngay jàng nga mën ci am débouché donc foofu lu ñu bëgg surtout convention bi foofu la gën a màcc que nit ñi xarañ ci métier yoo xam ne bi daañ ci am débouché ci Sénégal euh, beneen bi nag mooy aussi axe migration bi xam ngeen migration li muy def nay Sénégal ñaata xale ñooy dee ci biir géej gi te ñoo ñëpp dañuy wax dañu bëgg dem wuti liggéey kon war nañ ci mën a gën a réfléchir en tant que CNT mais aussi en tant que ministère pour xool nan lañ leen di jàppale ba loolu bu jeexul itam mën a wàññeeku. suñu sukkandikoo ci kii représenté direction des emplois jot nañu booloo tey joxe tamit information bu baax bi jëm ci wàllum emploi. donc ñun ñu wax ne bu ñu boolee suñuy doole ensemble mën nañ créer benn emploi bu des emplois yu durable pour jeunes yi et aussi l'autre aspect bu am importance c'est que dañoo am habitude du gis syndicats yi ci revendication mais tey beneen vision bu bees bu ñu gis c'est syndicalisme de développement moome ba tey nee na convention bi dina daal di accompagner ndaw yu bëri ngiir ñu mënal seen bopp. convention boobu dina permettre ñu enrôler les jeunes yi via le secteur privé et euh, CNTS dafa nekk en contact ak secteur privé yu bëri te ñoom dañoo nekk ci secteur yëpp donc loolu mën nañu permettre ñun non seulement ñu sensibiliser joxe la bonne information ak tamit. opérationaliser dispositif yi tel que convention bi ak yeneen dispositif yi ñu am surtout aussi ñu accompagner leen dans la promotion de l'auto-emploi. partenariat bi nag doon ab défi ci comité national des jeunes travailleurs CNTS bi nga xamante ne ñoo war a diriger bi programme.